soo may gis may rap mel ni njàmbi si taa bëgg ma daa yaag say fukk du mag ya wësë wësë sama gars salaam jàmm ku ni niggas baa ngi nuyoo lee maaku mëj wóol waa dégg ko fay may sia booy ji ji jili der akey booy grave akey messi akey take leen bëgg bu wér a wér di leen souhaité meilleur welcome to sama gars yi ni ngi koy préparé 2020 incha allah di ngeen am seen programme yi doy waar surtout seen émission Galsen Power xaaree leen ko si yeneen facette lu ngeen musul gis laa leen di indil 2020 incha allah di ñaan yàlla ñi ko fekkee ren yàlla nañ ko fekkee 2021 2020 bu ñuy dugg si képp ku dund 2020 yàlla nga dund 2021 incha allah loolu lañ leen di ñaanal yéen ñëpp donte mënul ne mais loolu la ñuy souhaité ñëpp incha allah jaajëf jili teer la akay booy Messi akay booy Graaf akay booy Jinne akay Take mi